سيدنا محمد في الأرواح وعلى جسده في الأجساد وعلى قبره في القبور وعلى آله وصحبه جنة جميلنا صلى الله عليه وسلم حبيبي مساقنا حمدا وشكرا لمن بالمجد متصف سبحانه جل أن مثل وعن قرن ثم الصلاة وتسليم يدوم على من اسمه أحمد منذ على الفتن نهت للمتي شيخنا لمعرفة فضلا وجودا من الرحمن سمنني ما سال يبسل كل الجود في قصر سرقا وقربا بدون المن والجبن قد فقت يا شيخ ابراهيم ساق اجل سميت برعن دين صاحب المنن انا جزيت خير انكم في تسرنا d'accord ci benn tawasul boo xam ne Alaaji Baay Mustapha radiyallahu taala anhu moo ko defoon ci Seydil Hadji Malick ñu jëloon ci cat la rek tuuti doon ci ubbeeku ko defee ñu jox sunu sëriñ sunu xarit Abi Bakrin Diagne Papa Diagne eh, moo ubbi comme niñ ko waxee rek bu ñu foo xam ne am na lu ñu war a laaj bu dee lu ñu xam ñu wax ko waaw mbokk yi salaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu waa adduna waa Sénégal yéen ñi nga xam ne yéen a ngi seetaan seen télévision bu mag bi di Aïnou Mady TV tey nag ñu ngi fii ci ëttu l'islam di ëttu alxaaji Iliman Sakho ko wax alxaaji Iliman Sakho nag wax lislaam bi yëpp fa tabarakallahu tey nag ñu daje fii di ñaanal kenn ci njabootam di alxaaji Tafsir Sakho bu lislaam bi yëpp waaye alxaaji Tafsir Sakho bu Sayyidina Muhammad alxaaji Tafsir Sakho bu Cheikh Sidi Hadji Malick ten nag tabarakallahu la ñu toogal nii ci njaboot gi tabarakallahu mu dundoon ak mag ñi fekk mag ñi di alxaaji Papa Diagne fa tabarakallahu moom la ñuy laaj lenn nag ci ay kaddu mu résumel ñu ko ndax wa kullan naxusu an min anba'i rusuli maa nu sabbitu bihi fuaadaka tabaarakallahu dafa am mag ñoo xam ni génération bi war nañ leen xam jàng leen ndax ñu mën a topp seen i tànk loolu moo waral tey ñu ñëw fii ci ëtt bu tedd bii seen seq ak waxtaan suñu bàyyi tabaarakallah alxaji Papa Diagne mu indil ñu jàngale ak fàttali góoru yàlla gu tedd googu nga xam ni dundam yëpp jox na ko yàlla ak rasulullahi mm-hmm. di alxaaji tafsir saaxo jaar fa ay magam jaaroon fa ay baayam jaaroon mm-hmm. alxaaji papa Diagne ñu ngi lay nuyu ci ëtt bu tedd bi waaleykum salaam mm-hmm. wa rahmatullahi taala wa barakatuhu sang bi ñu ngi lay delloo nuyoo eh, di feeñal tam suñu mbégte ci invitation bi waaw fas yéene tam wax suñu kamtalaayu xam ndax wa ma shahidna illa bi ma alimna wa ma kunna lil ghaybi hafizin mhm. daal lépp lu ma wax mhm. euh, dinaa ko témoignage mhm. moo tax ma oo kii Mbaye ak Alaaji Gaye ndax ñoom lu bari ump leen ci kër gi ci ñoom asalaam barakallahu euh, yaakaar naa ni macha allah ubbite boobu am na solo euh, ki ñu tax a dajee di alxaaji tafsir saaxo mm-hmm. fa tabaarakallahu mm-hmm. ku ngeen min la ku ngeen xam la mm-hmm. tabaarakallahu tey ndorteelam ci keppaaru alxaaji ibrahima saaxo ba mu egsi fii tey ci ndorteel bi lan nañu ci mën a indil comme waaw oh, alxaaji tafsir day dafa jaxasoo ak baay alxaaji ibrahima saaxo jaxasoo boo xam ne dafa mel ni rek mburu ak soow wala boog soow ak suukar waaw mënoo wax Alaaji Tamsiir te boola ci Baay Ibrahima sax waaw ndax itam nag Alaaji Tamsiir Sakho Limane biñ koy jox euh, bi muy ñëw ci maam euh, Alaaji Ibrahima Sakho mooy bi maam Ilimaan Sakho génnee àddina mu doon xale moom moom mage ñaari at moom Tamsiir yàlla dogal mu nekk ci Ibou Sakho Baye bu Sakho mhm. alaaji yi mi fekk ñu fa ñu dalal ko mhm. Mbaye Ngom ñu itam di daara maga ñu aslëf mhm. moom al Ablaye Diom di suñuy nijaay waaye di suñuy bokk jamono waaw Tamsir nag dafa doon koo xam ne dafa yàgg déggal alaaji Ibrahima Sakho ba tax na ñu bare bare Baye Sam Baye Ibou nag dafa daan yar njabootam li mu doon doon xale daan wax bu leen ko wax bu leen ko sàllul deen ko wax Baye Tam waaw donte li mu leen mag a bariwul it waaye seen seen way jur la waaw li ma la mën a wax daal ci bàyyi tam mooy benn soixante quatre bi may man ak Alaaji Gay ak moom ñu nga fanaan ca tool ba booba tool ba benn néegu ñax moo fa nekk booba tool ba jege ñëwul ak nga ko mm. sore woon nañu lool fa la fanaan sam bët bàyyi bu saax nañu bu ëllëgee na ngeen jubal directement ndakaaru su ngeen demee tudd seen doom alaaji si moo tudd doom ji alaaji gay fekk na ko ak man ñun ñett après la ñoo ñëw ko ñëw tëngeeg nag ci ngénte li mhm. waaw alaaji tam eh, sëñ bi daf ko nàmpatal ci boppam ba macha allah parce que bàyyi bu saax dafa daf ñu daan teel eh, jox ay ay responsabilité moo mhm. wax na ci benn bu gàtt rek mhm. am na am dafa idée bu bees fekk ne Tamsir mu nekk Labeyk mu nekk àndal ak Pape Diagne bu ngeen demee Ngekoox ngeen wax Ablaye Diop ak Alaaji Gay ñu préparé nga dem ngëriñ o Samba Kura nekk na préparé ñëw ngapparu jël mbay ngom dañu war a jàngi lingeer ëllëg ma ñëw ma def noonu ñu def quoi leen préparation yi ñëw jël mbay ngoom mi ngi nii ñu ànd jaar fi jël sàmba Koura jaar ab Ablaye Diop yal na ko yàlla yërëm rahmatullahi alayhi ak Alaaji Gaye ñu dem ba ñu demee Tëngéej dañ jullee dañu reer ba pare bàyyi bu saaxo daf ñu engrais waaw ne Tamsir bu ma lem boo lekk Pape Diagne dama bëgg ngeen def ndànk te it wax dëgg yàlla sax am na feneen fuy jaare woon waaye teel ñëw gi ak gaawaay gi muy idée bu bees feex mhm. Papa Bassirou Thioune nekk Alaaji Ibrahima Sakho mu nekk mu nekk xale bu fekkee boo ko yónnee mu daw mhm. boo ko joxee fasu naaru góor mu dawal ko mhm. waaw wax na ca sax loo xam ne booba jaman yi naqadi na ma waaye xam naa ni dëgg la ndax Papa Bassirou Thioune yàlla ko yàlla yërëm nee na ko dañ la soxla Alaaji bu Sakho waaw te idée bii di bees peq xale yi nga di ko jox ñuy dem léegi ngapparu ñëw léegi même pas quarante minutes loolu ëpp na te boobu route bi melul nii de mm-hmm. boobu route bi melul nii de mm-hmm. kii kii na kii mm-hmm. maa ngi dawal ba muy ba ba ba ruut bi xaw a toll nii ci man mm-hmm. ngone te booba dañuy soog a marié doon guney tuuti mm-hmm. waaye ba ñu jëlee idée bi jox ko Souleymane Kane na xaj na ma waaye wax na dëgg mm-hmm. ndax keroog dawal na loo xam ne tey ku ma ko joxoon du ma ko ñemeñe dawal xel xalaatu ko sax waaw kon alaaji Tamsir mënuñu ko wax tambax alaaji Ibrahima Sakho ndax dafa diig ci këram waaw dafa mel ni eh, digal la rek da ngay dugg fii génn fii waaw waaye bëggoon nañu xam date historique bi nga xamante ni ca ca tool ba. Mhm. ca fan la fan la doore waaw euh, tool bi nag. su aqiqatan. neuf cent cinquante sept. lañ ko tàmbali. waaw cinquante sept googu nag. wax dëgg yàlla dañu mujj jàng fi jàng yoo xam ne jàng yi ensemble la bàyyi bi soxla nga ko. Mhm. waaw. booba nag euh, dafa ay mbir yu xewoon rek. Mhm. waaw. yàlla yoo xam yaa rabbi alamin yëpp mu jël jaarat ci yoon bàyyi bu saaxoo nag dem sanc nga ko cinquante sept boobu bañ fay jàng fii jàkk ji yem booba jàkk ji sax pareegul jàkk ji ñi ko ñi ko tabax piir mooy góor gu ñuy wax papa Assane Boy ak papa Samba Ndaw booba yaa dikkoon mu ngi tol ci diggi dooleem mhm. ñun maag Alaaji Gay mii ñu dem di dëkk ji këram mhm. waaye bu jëlee paanu béton jox ko góor gi ñoom ñaar duñ ko antan ñu ne ko doom mhm. bu nu rey ñun ay mag lañu ñu antan ñu béton bi mooy tabax bi ñu tabax ja jumaa ji nii booba euh, ñu def ba Ibrahima Sakho bokkul woon ci jàkk ji waaw bokkul ci jàkk ji waaw ca biti la ne woon yàlla dogal nag ñu ne ci tool bi mu ngi jëkk tudda mbañax mbañax waaw ba yàgg bàyyi bu saaxo tu ko abasa waaw mu ne ñu laaj ko lu tax mu tuddee ko abasa mu ne fa la nebi jëkk a muy Addis Abeba mm. waaye ba mu demee ba yàgg la ko changé tudde ko Madinatul Munawwar waaw barakallahu dafa mel ni mbokk yi eh, bëri tur dafay tegtale tedduk mbir ma très bien eh, ñuy fàttali mbokk téléspectateurs yi siraan seen télévision bi di Aïnouma TV ñu ngi fii ci ëttu alxaaji Iliman Sakho mm-hmm. bés ni tey lépp suñu wayu tedd wa bàyyi ko woon alxaaji Tafsir Sakho radiallahu anhu mm-hmm. njaboot bi yëpp daje fii tey di ko ñaanal mm-hmm. eh, ñu bëgg a fàttaliku as lëf ci dundam ngir mën ko jëriñoo rawatina nag génération bi di ñëw gis nañu taxawaayu kilifteef bi nga xam ne alxaaji tafsir saaxo taxawoon na ko ci kanamu magam ja bàyyam ba alxaaji ibrahima saaxo te suñu jamono bi kilifteef dafa xaw a tumuranke ci ndaw ñi te loolu nangu kilifteef googu moo indi fii tey alxaaji tafsir saaxo ban orientation ak conseil ci taxawaayu alxaaji tafsir nga ciy jox ndaw ñi waaw ah, alxaaji tafsir day d'abord ku am orma la mhm. ku am óllëre la boo xoolee ay xaritam yi mu jaxasooloon sax ci ngay xamee ne ku am ëllëg parce que bi ko yàlla di boole ak Adja Samb ak Ousmane Diagne ak Djibi Deme booba ñooñu duñu ay ay milliardaire booba ay simple la ñu woon macha allah mm-hmm. ñu mu tudde leen jab doom ba yàlla dogal gis bu fekkoon ne ba mu leen di tuddee doom ba ba fekkoon ñu tollu ci ay kii dañu naan xëy na intérêt tax mm-hmm. waaye boo xoolee ña am ñam ñu doon ay xaritam ak ni mu leen tuddee doom mm-hmm. nga daal di xam ne kii ku am ëllëre la ku xam xarit la ku xam démb la mm-hmm. Ousmane Diagne ñoo bokk dëkk fii waaw ci dëkk bi di ay morom marché waaw li may wax ki momu gëna xam ndax ki ci lekk bi la juddoo fi la gané adina mom bay ngom mi di suñu mag waaw donte li ñu ñu mag kon mu tek eh, kele di jibril dem di xaritu ben bakkanam ah, kan waaw waaw di jeet di xaritu ben bakkanam ci nga xamé wala rëy tam sir sax ba pare nak mu don nit ko amoon fulla nak ndax itam nak wax deug yalla bay bu saxo yarul nit ku ñak fayda ragal mm-hmm. ak ñàkk fayda mm-hmm. kooku moom bokkul ci kuy saaxu yar mm-hmm. ak tayal moom moom waaw léeg-léeg dama koy wax xale yi bu ñuy destaan jullee fajar wasifa ma ne si sa saaxu jëf waaw ni ngay def nii de noon la bàyyi bu saaxu daan def yee sa njaboot ñu nga toog toog ànd ak ñoom wasifa bàyyi bu saaxu noonu la daan def waaw ba tax na alaaji tam sur loolu la màgg ci loolu la xam ba tax na li mu li ko gën a li mu gën a nàmp ci waay bu saaxo mooy itam ku yaatu la woon mhm. waaw yaatu lool am na bés yoo xam ne am na bu dee alxames dafa kër eh, fële la kër Rose mhm. bu dee àllarba kër Ndey Astu doon mhm. lañ ko daan teg ba bi neet àllarba rek ba bëgg seeti Habib Sakho da nga naan nañ dem kër Ndey Astu bu dee beneen bés bi ñëwee nañ dem kër Yaay Rose yooyu yëpp mu dajale ay xaritam hmm. ak ay mbokki taalibeem ak ay rakkam ak ay jarbaatam ñu hmm. àndandoo añ di waxtaan ci démb hmm. loolu bokk na ci Alaaji Tamsir Sakho daan liggéey barakallahu loolu am na solo tey eh, dañu ñëw rapidement rek dugg ci xadara alxaaji Iliman Sakho ak xadara kër Seex Xaaj Malik yaakaar naa muy benn xadara eh, góor gu tedd ga alxaaji ma Sakho am fa taxawaay boo xam ni eh, ku nekk da doon xalaat ni ndax wuutu ko dina dina yomb mm-hmm. waaye tey daf mel ni bi mu fi jógee rakkam ju tedd di ñëw taxaw mm-hmm. taxawaay boobu mm-hmm. euh, tabaarakallaahu lan nga ñu ci mën a indi waaw euh, man day maa ngi fàttaliku gàmmu Tiwaawoon gu ma sa am ñu ngi ko daan jàng ji Ziguinchor di ko jàngal Serif Boubacar di doomu Serif Yunus Lubangeer ak Serigne Maki ar ar Arfan Tijaan ñooñu ñëpp Baye bu Saaxu daan jàngal waaye Baye Abdou moo ko ne alaaji bu Saaxu mu nekk la béyk si mu nekk gàmmu Tiwaawan bu amatee bul jàngi fenn ñëwal fii mu nekk si loolu laay def incha allahu taala waaye maa ngi fàttaliku ba soixante cinquante huit booba vingt ans la ñu am olof la ñu dugg groupe la ñu ñii yëpp fekke nañ ko mm-hmm. àndandoo dem war nañ ma fukki xale ñoom Moussa Gueye Sidia Mbaye Ngom Patema Dégén ya dem jàngi Ziguinchor mm-hmm. waaw cinquante huit googu suma suma am na ci takk bu ma ci takk ci la ñu yeewoon Sénégal ba ñu dee ay ci guy yeeg mm-hmm. mbedd yeeg yooyu bon bref euh, kër Hadj Seydi Hadji Malick Ibou Alaaji Ibou Sakho li mu ci def ñu teg nañ ci bët xilaatu zahab bi wax dëgg yàlla booy xool danga naan képp kuy jàng di gàmmu sa bëgg ñu déggale da ngay roy bàyyi bu sax boo xam si na nga yaa xam da ngay da nga koy roye am na ñu dem ba ñu doon ay saaxo deux waaw bu ko defee euh, kon bàyyi bu saaxo ci kër ba sidage Malick li ma la ci daal mooy euh, bàyyi Abdou Aziz Sy Dabakh téye na loxoom ca bayaal ba cem tey jigéen mhm. ne ko Ibou Sakho mu nekk labbayk mu nekk bu yowmal xiyaam mhm. waaw mu nekk Sidi Hadji Malick donte le benn bàgg la am muy mhm. ak lu ko yàlla jagleel balaa muy séddake dinaa ko ne séddal kii xam na lu tax mu nekk si déedéet mu nekk bu ñu xamoon bu ñu ko mën woon ni nga koy waxee it duñ ko mën a waxee noonu ndax sama bàyyi nee na sama bàyyi nee na sama bàyyi nee na te gis nañ wax mu ne gis nañ ne benn way wax wooy yëkkati balaa muy jeex di nga dinañ ki tudd Seydi Hadji lu war a fukki yoon waaw daa oote na ñu ne moo sikk oote mm-hmm. nga ne mawlaahu borom ki may woo mm-hmm. ñu ne ko mu woo nga ne hu nabi mi may tagg mm-hmm. ñu ne Seydi Hadji Malick jëmu moom fan maanaam tu si laa ngi laa a wax rek jëmu moom fan nga li kërim yi ci teraange àjjana yi ñu ne Maodo kañ mu ne ama audie atum onze ma ñu bu ñu jaaxal si mu Seydi Hadji Malick dunul nabi dunalu ëpp onze ans euh, mu ne leen toxotee tax may wax ah li mu duna ngi wax muxtazan ala jëlelin waaw di Seydi Hadji Malick mm-hmm. loolu amoon impression la woon ci daa mm-hmm. ibu saaxo mm-hmm. ci fonk bu fonk Seydi Hadji Malick ba tax na di nga wax ne ci këram xadara Seydi Hadji Malick xadara maam Iliman Sakho maam Iliman Sakho koy Seydi Hadji Malick la mag waaw bokk na ci dégg naa samay nopp bu ma see a wax Seydi Hadji Malick mm. loo xam ne lu xaw a ñagas la mm. da koy won gannaaw mm-hmm. bokk na ci proposé na ko sox euh, soxna ne ko mm. dama la ko bëgg la bëgg may soxna su ma jur doom ju ma jur waaye diggante Seydi Hadji Malick dafa li ma dafa won a gannaaw nekk a ne tekk ah, ba yàgg nekk si waaw mu ne dama bëgg a nekk taalibe waaw ah, ndax man fasuma yéene sama euh, yor sama jabar te du ma ko mën a diriger te man ku sant si ormal naa la waaw baarakallah macha allah xorma boobu ak tabaarakallahu yar boobu ak teggin yooyu yaakaar naa jamono tey jii la ko soxla te mag ñi li ñu fi indi woon dara jógewu fi ku gëstu rek mën a am fooy teg sa tànk waaye tey wuutaayu bàyyi tafsir ndax wuutu bàyyi wu saax yombul mais yaakaar naa ni falaam boobu ba tey laalu suuf lay gën a tàkk di jëm sa kaw ah, mu am cohabitation tamit bu dëgër ak njaboot sax Seydi Hadji xataa ba ci xalifa bi nekk fi sëñ Babacar Si dëgg la fi yàgg te wër dëgg la tey cohabitation boobu waaw ah. ah, cohabitation boobu day mm-hmm. euh, ana Sele Sakho mm-hmm. am na taalif yi mu ci def mhm. waaw jan ba cheikh yi mhm. waaw gis naa moom ah, kii eh, ay ay abiyaat yu mu ci def ndeysaan yu am solo mhm. di wax ne bàyyi tam mu ngi ci wetu xalifa bi fu mu mën a nekk waaw di ci lim nag ay ay ay ay abiyaat yu bare bare bare ndeysaan waaw bërki dem bala ma koy wan ni jot xam naa demoon naa ba di ko bëgg xool sax waaye moo ko waaye xam naa su ma xamoon ne di nga ma tey incha taala naa ci gën ndax yu am solo la di wax ay maal ay barab yu mu ànd ak moom mhm. ndeysaan fu mu toll mu ngi ci wetam mhm. waaw ba tax na itam eh, ku ñu fonkoon la ci kër si maa Malick ndax Baye Ilim Baye Ibou Sakho mhm. ba kër sëñ Abdou waxee ne na ngay ñëw ndax Alaaji ma Cissé Pire moo daan moo ko daan wéttali moom fu génne àddina nag Baye Ibou Sakho toog ci bu ginnaaw sëñ Abdou bu waxtaanee baagal jox ko Baye bu Sakho àggali jàng ci waawoon ba fi jógee itam ñu jox ko Hadj Tamsir saxo waaw kon bu ko defé nonu noonu noonu ARH bi non lañ ko top teree diko top topp diko top ko nonu ba ci tay moy co cohabitation bi ngay wax ba ci seigne Babacar si Mansour ni di khalifa tol am di tariqati tijaniya allah ayadahu allah wa nasaruhu yal na ko yàlla taxawal ak mbooleem usuratu Seydi Hadji Malick Sy allah am yalla neen yàlla dëgëral yàggal seen taxaway may leen wér gi yaram waaw tey taxawaayu Baye Tafsir ci tànt ak yeneen bi mm. tey loolu ci a fàttali mm. ah laaj nga ma lu ma xaw a jaaxaar na delluwaatal question bi ma dégg taxawaayam ci tànt soo gisee ci tànt ànd ak tey nga gis Baye Tafsir taxaw ci tànt waaw lu mu lay fàttali ak yëg-yëg boobu waaw wax dëgg yàlla nag dama eh, fàttali Baye bu Sakho lu bari nag mm. ndax toujours li ma la ne eh, ni ku nekk ku la yar foog nga am doo jël ci moom waaw si colke geeg mhm. taxawaay beeg mhm. ak yëngu gi mhm. waaw ndeysaan macha allah bàyyi bu saaxa bu ñu ma seedi way bu bay bëggee ruube dafa naan ërtal leen ko da koy dawal ni naaru góor waaw départ leen l'essentiel na ngeen daje ca teeru ba rek waaw way moom yëpp am importance baat yëpp am importance baat yu xóor yeeg baat yu mag yeeg baat yu sew yeeg yëpp moo am importance dafa way ne dafa may ensemble instrumental waaw bu ko defee tama yeeg tànba di yeeg tulli yeeg dënde yeeg yooyu yëpp bu nek dafa am fu muy fuñ ko fuñ ko soxla kon non la ka di mel am na ñoo ne borom ba di xour lañu way yu am doole ñu mën ñu baaru du len ñaar ak ñet lay jaxase ci bi rek day way day neex wa li wax gars xamne ne ci ki mam talbat lo ma sha allah Ki at tulli lo woon <laughs> barakallahu bismillah wa barakallahu yaakaar naa loolu am solo mhm. eh, eh, dañ wax ni mag ñi école lañu pour ndawi jamono tey yéen nag woon ubbi tey ndax eh, firi firi démb ak firi tey yaakaar naa wuute na waaw wuute na nag bare bare wuute tey eh, ndaw ñu ci toll jeunesse bi ci toll tey te ay ndaw mm-hmm. dëkkmal yenent bi ñuy sopp alxaaj Ibrahima Sakho ñuy sopp alxaaj Tafsir Sakho mm-hmm. ba mu dugal leen ci géew boobu tey lan mm-hmm. nga leen di dénk waaw ñooñu daal li ma leen dénk mooy koo xam ne danga nga sopp yenent bi sallallahu alayhi wa sallam ba bokk ci ñi koy way da ngay jéem a waru jàng tuuti Mhm. waaw bañ a jàng ci français mhm. bañ a jàng ci ndax dafa am ay lettres ci arab yoo xam ne mhm. amul ci français foog nga composer ay lettres par exemple ayin yaa ngi war a jànge bakkan kooku fekkee da nga bëgg a ci français foog nga def h a n mu a nos bu fekkee ne da nga ko tomba nag foofu lay gën a gaaw di nga nos tomb ko ba pare jëli ko ca baat foofu mm-hmm. ma xaarijal uruf mm-hmm. boo bëggee way sa way neex loolu la Maodo ñaamee mën a woon ñu bëree bëri mm-hmm. rahmatullahi alayhi yana ko yàlla yërëm moom dafa amoon fasaha fasaha am ma xaarijal uruf baat bi neex moo tax mu jafe wayandool mm-hmm. bu ko defee nag ñi nga xam ne dañuy woy nañ jéem a góorgóorlu ndax way mm-hmm. du càggin da ngay way topp sa baat mu neex rek mm-hmm. way da ngay dafa am lu ñuy wax euh, misra euh, misra ussaani way dañ koy xàjjale ci digg bi mawlaaya salli wa sallim daiman abadan fu mooy misra ul ala habibika xayril xalqi kullihimi waaw bu ko defee nag day am léeg-léeg loo xam ne dañ koy defee sidaaj ma dafa am euh, bàyyi bi sax daana ko wax dafa loo xam ne mi ngi tudda tatt mimul bayti Mhm. tatmimul bayti mooy li ngay wax jeex na mhm. mais sa sa euh, sa sa sa tër jeexagul nga ut loo ko complété ñu tatmimul bayti mhm. am na yax tatmimul bayti léegi li ngay wax way wi jeex na mais àggagul nga tam ak complété que ca way wa ca des loolu day day am waaw bu ko defee yooyu ñiy way xam ko parce que léeg-léeg nga gis way nit wayal nit ku mën a jàng sax mais du firi li mu koy parce que du xam li muy wax du xam lu muy wax bu ko defee ne yéen ñi nga xam yi nga xam ne dañuy jàng way te bëgg a suyante bi lool li mm-hmm. ngi seen baat neex mm-hmm. ni ñu góorgóoru def ci peen mm-hmm. di def seen seen kémtalaay kàttan dimbali ñu ñuy woyal ndax ñu mën a ñoom it ñu xam li ñuy wax waaw barakallahu uh, góor gi yaakaar naa loolu am na solo duñ uh, la fi te lu yàgg ndax tabarakallahu xëy na jotaayu mag laajul loolu di ñaan yàlla yàlla guddal seen fan te bàyyi leen uh, ci barke sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam tey njaboot gaa ngi nii ñëpp wër la ñoom xaaji Habib xalifa ak ay rakam fatabaar wala yi fi. Ah. lan nga leen di dénk ci tëj waaw li ma leen di dénk daal. mooy euh, dañu wax ne ku ñëw andil la. buy dem yóbbul la ak koo mën a doon nag mm-hmm. ba tax ne li ma leen di denk ñoom njabootu Baye Hadj Rayba Sakho mm-hmm. waaw mënuñoo bañ a déglu nag Mm-hmm. parce que bu jaam jaam yàlla jógee fële ñëw sëriñ bi wax yow foog nga déglu ko. Mm-hmm. waaye nag in jaakum faasiqun bi naba'in fatabayyanu. waaw bu ko defee du luñ la andi rek nga jël. Mm-hmm. dafa am ñoo xam ne foog nga jàng leen. d'abord li nga leen di jànge mooy lan mooy da ngay xool li ñu lay andil ndax sa intérêt la wala ñoom seen intérêt la wala seen intérêt la yéen ñaar ñi bu fekkee ne kii li mu lay andil sa intérêt la yow donc. jàppal ci yàlla nga jël ko ak lu mu metti metti bu fekkee ne nag seen intérêt la yéen ñaar mbay bu saax nee na bul soxor bañ añaane la mu ci a am ndax la mu ci war a am jëlal ngeen bokk ko bu fekkee ne intérêt la moom dong nag gëstuwaat ko bu baax xool ba xam ndax li muy wax fan la fan fan lan ko tax a jóg bu boobaa nag mooy. lu sama ni si biir. mu waaw. waaw Seydi Hadji Malick dafa bi. in atla atlanta lisaanaka in atlanta. yàqul ka yàqul bien. Mm-hmm. lisaanaka salaam mi. Mm-hmm. in ablahta ta boko baye mhm. boyal ke yakul ko mu lek la mhm. waaw motax jamono bi lu nit di wax dal mhm. li ci ëpp doole moy rek do joom waye boko ko tëralee sa xalaat da ngay wax wax téeméer yu bax ben duunu ci rek ñu jël boba denc ko dila xari bes nak bu ba jotté rek dañ ko soxla dañu jël baat booba tek ko ne yaa waxoon li fekk sax xooluñu tër tadrid la na nga ko defee woon uh-huh. du ñu ko xool ba agsi la xam la tax nga wax loola uh-huh. waaw dañuy jël rek lañ ca neex rek uh-huh. kon su ko defee yéen ñeeñ nga xam ne yéen yéenee kilifa yi yàlla bàyyi leen fi yàlla yàlla guddal seen cër guddal seen fan may leen wér gi yaram te may leen taataan ba ngeen xàmmee ba ngeen mën a xàmmee ki leen di andil lu baax ak ki nga xam ne dafa ñëw ngeen jaxase mhm. waaw ndax nag jaxase dafa bari fi léegi mhm. waaw te nag xatuutun jinaanullahi la yadxulannaha wala qaatiul arham zaka tabibu waaw mhm. dafa am ñoo xam ne seen wax boo ko déglu rek xam ne du baaxul am na ñoo xam ne dañuy jaxase kër waaw surtout ñun ñi ñu way ay taalibe waaw man d'accord dugal nañ ma ci kër gi di ma def kilifa ak ay seen mag yo waaye man sama bopp taalibe la considéré sama bopp Ibrahima sax moom may moom moom may wéru saatul fatiha maag mm. sëñ Habib mm. mille neuf cent soixante cinq mm. moom gën a nekk gune waaw booba léegi so léegi la ñuy soog a wàcc waaw maa ngi fàttaliku ndeysaan mas moom ma ak sëñ Babacar Mari ànd nañu def tournée booba ay Baye Ibrahima Sakho dafa dem euh, fële euh, Rome mm-hmm. ñoom séddi sëñ ab ñu ko takk ay nul maadi boobu ay nul maadi ben neegu ñax mo fa nek bu am miir bu tollu ni waaw ñu tek ci kaw mhm. sëñ ab du tok ni mu ne ñu ne ko papa dañu bëggoon nga tagul suñu papa pour ñu dem jàngi biraatul arab mhm. ndax mokal nañu alxuraan mhm. waaye jàngaguñu dara ci fiq waaw keroog laa dégg suñu abdu mu ne len day bu ngeen xamoon li ngeen fi bayyi day dal len tagul fu ngeen dem ndax maa ngi len di xamal ne jami'u zaytun bu tunisi mu mu ne len recteur ba labbe la waaw recteur ba labbe la ku nag ku mel noonu du leen jàngal lu dul ay no afriya du leen jàng lu dul jarafa ma zuhraf maanaam géographie waaye jàngal leen ci tawxid ak taxqiq ak xaqiqa du ngeen ci am dara du ngeen ko jàngal parce que du seen si intérêt ñoom waaw kooku nag ci nga xamee ne kon eh, jàng dafa am solo waaw ñoom nag yàlla dogal na macha allah teel nañoo wàcc alxuraan lool nga jàngi kër Maamu Njaay sëñ Babacar sëñ Abib mi ba yàlla baaxee leen fa lool ñu tari alxuraan bàyyi bu soo ko leen feet bu rëy invité El Hadj Ablaye Thiaw Saint-Louis mu ànd ak ay car booba car yi am mi ngi tuddoon car yi chausson mm-hmm. ñu daan ko GG gouvernement général moo amoon mm-hmm. yamono mm-hmm. waaw kon mu ngi noonu mu ngi loolu ndax ban mën nga fàttale année ak at bi waaw sëñ euh, man la kan sëñ Habib defe cent cinq la Baye Ibou Sakho demoon Rome soixante quatre soixante cinq waaw kon soixante six 66 fekk na ñoom ñu mokkal alxuraan waaw waaw moo moom xalifa bi sëñ abi abi 65 fekk na ñu mokkal alxuraan parce que sëñ maam Njaar moo leen jàngal mm-hmm. bàyyi bu saaxo fekkal leen dar mm-hmm. fekk bu rëy rëy rëy mm-hmm. invité ak Ablaye Thiaw ca la Ablaye euh, euh, ca la bàyyi bu saaxo invité waate fii ci Tëngéej fii jàkki këri kaw nekk fa lañ ko invité ñu tànn ko ba ca ba ca kii ba booba jàkk ji dem fii waaw bi ne ko waaw mu moom waaw moo ko jëkk yóbbu bàyyi bu waaw ah, moom moom Alaaji ah, Abdoulaye Thiaw mm-hmm. ba ñu demee itam ndeysaan mu ànd ak moom dem ak fekk ñëw Côte d'Ivoire en mille neuf cent soixante-dix mm-hmm. fekk fa ay mbokkam markeur yi mu nekk ah yow maa ni maa la andi fii nga am fi ay taalibi xaat <laughs> waaw mu nekk léegi samay mbokk yi lébu la ñu ndeysaan waaw tey euh, tabarakallahu comme niñ ko xamee mbokk yi ñu ngi fii ci mm-hmm. imam alhaaji Iliman Sakho radiallahu anhu euh, ci ñaanu sunu baay alhaaji Tafsir Sakho mu baax ma nga xam ne moo wutu woon bàyyi mu wutu ay magam tey nag njaboot gi yëpp daje ci mhm. teewaayu xalifa bi sëriñ Habib Sakho mhm. ak ay rakam sëñ Babacar ak fi tabaarakallahu ñu mhm. toog nag sëriñ Pape Diagne mooy muy taw ci kër gi di ñu fàttali jaar jaaru mag ñooñu ku ñu alxaaji Ibou Sakho ni l'islam bi mm-hmm. tudd nga léegi alxaaji Abdoulaye Thiaw Laye mm-hmm. ak daakar naa doo daj Sénégal te mm-hmm. amul mag moo xam ne jëflante na ak bàyyi alxaaji Ibrahima Sakho oh. eh, waaye nag njaw particulièrement njabu Cheikh Sidi Hadj Malick tey xalifa sëñ Babacar Sy radiallahu anhu wala alxaaji Mansour ba ci alxaaji Abdou Aziz Dabakh nga xam ne moo gën a marqué temps am tey ñooñ seen relation ak seen i jotaay lan nañu ci mën a fàttali ñoom seen relation ak kan ak alxaaji Ibu Sa Ibrahima Sakho ak alxaaji Ibrahima Sakho dëgg yàlla day xam naa ne Baye Ibu Sakho li fi mu tegoon sëñ Babacar Si tegu fa keneen nee na nag sëñ Mansour Si mooy sama sëñ bal xaw ma waaw alxaaji Abib nag mooy sama xarit moom laa tuddee sama taaw bi xaaji Abib Sakho est waaye bu dee eh, sëriñ. Mhm. danaan sëñ man mooy sama sëriñ. xam nga nag eh, eh, doomu aadama yi. Mhm. ñaare boo nee diw diw rek ñu am na fu ñu la féetee. loolu rek la waaye ñun bàyyi du sax dañu daan yar ne ñu. Mhm. ci dañ ci yëngu-yëngu yi. mel leen ni salguuf. ñu ne ko sax lan mooy salguuf mu ne garab bu gàtt la guddul. waaye ngelaw mënu ko guddi. Mm-hmm. bu ngelaw ñëwee day tëdd. Mm-hmm. bu demee mu passé lii day passé. Mm-hmm. bu leen kenn tax a ñaaw na. waaw man Hadj Ibrahima Sakho du ma bés. taabu Seydi Hadj Malick. est parce que. ñu ne loolu mooy lan Sakho mu ne leen Maodo Malick bu amee doom. di seetaan taxawu ko ba mu dem safara man Ibou Sakho lan laa fay uti. kenn xamul waaw man mii day su suub. sama njaboot dama leen di suub ñoom ñëpp palmaan mbaa ma baxa ñëpp waaye nag duma palmaan kenn di di baxa sama doom waaw te nag defe naa ne ëpp mu wax fu la Seydi Hadji Malick nañu moy tund ko mm-hmm. waaw loolu mooy ba mooy nga am koo njabootu Seydi Hadji Malick kenn du jur bañ mm-hmm. nga jël kenn kenn Seydi Hadji Malick jël ko di ko am loo koy tuddee mm-hmm. di am kenn loo koy tuddee Hmm. waaw hmm. ñoom ñëpp la bëgg hmm. waaw ku am doom nag téeméeri doom bu yaboon am ci ko xam ne sax dafa mel meneen melokaan foog nga bëgg ko ah. eko yàq jur waaw rawate na nag ñoo xam ne ay nit yàlla lañu yàlla yar Sidi ma Malik yar ak njabootam baaxe ko ba ñoom ñëpp ñuy ay fuqahaa u di ay ulamaa u hmm. bokk ci ahlu rachidina hmm. di ñoo xam ne eh, ay mbañ ruus lañu hmm. waaw di ay kuhóol ku mel noonu yàlla baax ku mel noonu man duma jël kenn ci njabootam di ko xoddi mbaam ma di ko am lu ma koy wax kon koku mooy tarbiya ba ibu saaxo ci njabootam waaw waaw kii daal laaji tam si saaxo nag manqué nañu ndax dañu bokk jamono lool mu baaxoon lool nag waaw comme ni ma la ko rek daan ñu fàttaliku bés bu nekk. Mhm. waaw on naa sama taw moo ko tudde moo ko alaaji gay mii. Mhm. ñun ñette. barakallah euh, tey ku ni alxaaji Ibrahima Sakho wala alxaaji Tafsir Sakho. Mhm. wala nga ni njabootu alxaaji Iliman Sakho Toubour. ni njabootu l'islam bi ñoom amoo donte kër seel xaaji Malick la ñu bokk. waaye am lante nañ ak ñëpp. waaw ndax mën nañu fàttali relation. ku mel ni Serigne Fallou Mbacké. waaw waaw ak ak njaboot gi daal. dëgg euh, de jàng nañu Linguère. ñii fekke nag mhm. <laughs> waaw ñii itam fekke nag mhm. booba fii bunta euh, jumaa ji mhm. boo accès ci angle xam nga route bi dafa jubal ba ci buntu jumaa jumaa ji boo boo serré à droite nag porte boobu ci digg bi foofu la kër sëñ Fallou nee woon di néegu ñax bu rafet boo xam ne boo duggee ci doo xam sax néegu ñax la ndax dañ ko liggéey ñu jógee Linguère ñëw ñu ne ah sëñ Fallou de alaaji mu mu ngi ci buntu kër gi mu ne ne leen na agsi du ma ko fàtte mukk ñii ñi fekk nañ ko. Mm. très bien li ma doon wax ngeen. Mm-hmm. ba ñu accès am lu mu ko jox. Mm-hmm. ba mu ko joxee la mu ko jox. Mm-hmm. am benn ay alxuraan bu mu wax. ay alxuraan ba sax bàyyi bu sax nee bi ma génnee ba agsi laay soo xam baat bi lan la ci jublu. waaw dafa ne dafa am ku mu dee. ne fas wi jox naa ko Ibou Sakho. bu muy dem nag. Hmm. mu am xaalis mu ko jox. Hmm. nekk mataan lakum. Hmm. wali an amikum. moom nag wali an amikum jooju moo ko jaaxaloon. Eh. parce que lii ab yóbbal la. Ah. yéen a ak ak juri kër yi. <laughs> bàyyi bu sax nag man wali wali an amikum jooju mu ci boole tam di fuqaha di di faqiha ci ahlul fuqaha nee na moo ko waaye ba mu tawtee ma ne eh, am ku ko dab ku ñuy wax daraame hmm. moo daan bu ko ne sëñ Fallou hmm. ne ko sëñ bi de nee na naaw góor gële yàq moom hmm. mu ne cey waaji la xam-xam yi lee tax kay mu ne mataan lakum wali an amikum ak seen juri kër léegi den dëkk leen lii moom ko jox bëgg ma dund ci dundaaleel ci njab eh, eh, garab gi xoolal boobu wax rek boobu sew sew. Mhm. waaw sëñ Fallou nag. Mhm. may fàttali ko ñu fekkee nañ ko ba ñàkk seen ndeysaan di nga ko tegal bàyyi bu saaxu sees mu nekk sëñ bi suuf lay toog mu nekk toogal ci kaw. Mhm. <coughs> mu nekk aw Mm-hmm. boo bëggee mu taw la da nga koy suuf. Mm-hmm. mu nekk wax nga dëgg de. Mm-hmm. wax nga dëgg de ba tey ma taan la ko. foofu foofu la yem. Uh-huh. nekk ma taan la ko. waaye ba ko ne wali naa bi ko. ma ne ah, ñoom daal benn benn benn benn misraaw. liñ fiy tëgg. lu leen neex. waaw kooku sëñ Fallou loolu xam naa loolu ci moom heureusement kii fekk na ko. Patembe fekk na ko. Alaaji Gaye fekk na ko. waaw. baarakallahu muy diggante bu rafet. waaw xam ni tabaarakallahu ba tey njaboot gi ñu ngi ci teg seen tànk tey xalifa bi wuutu leen ñoom ñëpp yal na fi yàgg te wér di alxaaji Habib Sakho waaw ñu tujjee ko sunu maam Habib Sy waaw radiallahu taala anhu yal na ko yàlla dëgëral amiin amiin yal na gën a yëkkati liggéey bi tey moom ku ne alxaaji Habib Sakho ak l'islam bi yëpp waaw dëgg la de fa tabaarakallah dëgg la de dégg nga ko Touba dégg nga ko Ndiassane dégg nga ko Tivaouane dégg nga ko fépp tey taxawaayam ah am naa ci lu ma ci wax hmm. parce que man dama voyage woon nekk àll hmm. nekk Gabon mi ngi ni di ma dégg hmm. fekk na ma Gabon ànd ak man Angola ba ñu demee Angola Edouard Touré fa nekk ba léegi mu ngi ñu yóbbu ca ak euh, dëkk ba war na toll ni Dakar Tëngéej. Dakar Rufisque. waaw mm-hmm. euh, dama fàtte turu dëkk ba. wam wambu. Mm-hmm. waaw foofu la ñuy yóbbu teral ñu fa. man moom la Umar Omanda ak benn xale bu Ablaye Thiam. Mm-hmm. ak euh, beneen xale bu angolais boo xam ne dafa tuuboon. moom it moo ko tuubal. mais juróom la ñu mais kenn ku nekk dañ la jox voiture. waaw. waaye man dama ne damay bokk ak moom oto. Mhm. mu nekk comme garde de corps. Mhm. waaw parce que boobu it ni costume laa sol. Mhm. ak yàggul dara ay quatre-vingt-quatorze. waaw parce que boo ñëwee boo leen seeti da ngay ndur ñëw. bon ba ñu demee. góor gi su recevoir ko. laaj ko lu mu bëgg. daf ko ne daal jàkk laa bëgg te dégg naa ne fi amul jàkk mu nekk rek. mu nekk ah mu nekk ah mais dama seeti fu la neex. ah Eduardo Santos. Mhm. moom moo doon moo président moo fa ne ba léegi. waaw mu nekk Sëñ Habib ne ko jàkka laa bëgg mu nekk waaw jàkk foo ko bëgg sa kër wala mu nekk fii dëkk bi. Mhm. ñu dem bu ñuy wax pal lap pala palanga. Mhm. mën naa mu ngay déglu ku ñuy wax Mamor Jong te nga gis dëkk. mu nga fekk na ma dellu soit na Gabon. fële ba ñu jëlee inauguration jàkka je. la ma nuyoo bu dem waaw lii ku def lii ma nekk Sëñ Habib sax. li mu njëkk fabrique mooy benn magasin boo xam ne dañ fa doon jaay ay boisson mhm. boisson xeeti boisson yu nekk magasin bu rëy rëy rëy mhm. moom la tax moom la sëñ <laughs> ay bi ne di buñ fi jëlee lii mhm. def fi place jaamu yàlla yàlla dinañu ko fay ñu bale bale place ba yëpp ba mu jeex nettoyé ko léegi ay ñii am tapis am amaguñ sax ay basang yu bëree bari ay benn benn tapis ñu yóbbu ndeysaan def inauguration ba ñu ñaanal ko ñu jóge foofa avion bi mu ñu jox man ak moom dong ñoo bokk avion ba ak Omar Omanda ñu dem Brazza mm-hmm. avion baa ngi ñu wàccee euh, fële euh, Pointe Noire mm-hmm. booba itam dekk ba tangana na lool moy bref rek li ci hmm. abdou Sakho doxal mais hmm. eh, gis nañu saabim bi te bobu hmm. kenn mënu ko gis ndax ku ko gis waw bobu ku ko gis defe nañ ne eh, da nga ñew pour ray ko ay garde corps mardiens waye dem ni ba gis ko ñu andu ak mom waxtaan ak mom ñu delluwaat mu gis Edouard eh, ne ko yalla na def jamm ci dekk bi mu gën kan a gaawee waaye dogalu yàlla sang ba ñu départ ya, départ dem la saabu bi wow mhm. waaw waa ni gëna am jam mhm. waaw moko moko moo ko moo ko ba mhm. environnement yan at yan at lay tombel 92 93 94 wow waaw 92 93 94 mais di wér mooy 92 wow wow waaw waaw bon ñu jaar Brazzaville su ngeesu mu euh, oo ñu bu invité ñu ca këram. Mhm. ñu ngi ànd ak ku ñuy wax Nayki Mbodj. Mhm. Brazzaville la nekk di Halpulaar. Mhm. ba ñu demee mu camp ba lañ ñu recevoir. xaw-xaw bu rëy am na fa. parce que ba ñu ba demee nee na ko kat sëñ bi na nga jéem a góorgóorlu. loolu kenn du ko wax buur nag nga baal ma sëñ Abib. waaye nag di nga fi jóg. waaye di nga fi dellu siwaat mais boo fi dellu siwaat di nga fi yàgg lool. moo tax bi ko falaatee ma daal sëñ ab bi de bu demoon amaan na mu am foofu af lëf <laughs> waaw parce que li ma ko wax kenn du ko wax waaye ba ñu génnee mhm. du ma ko fàtte mu ñu jax benn 4 x bu rouge mhm. mais benn waay moo dawal oto ba baare ñu tuuti ko rajo rey ko mhm. ndekete mbokkam la mu làkk ko ci Lingela ne ko bu ngeen jaar fii ñu rey leen parce que xam nañ ne yéen a ngi jóge ci président jaar oñeeku daal di jiitu ñu oñeeku ñu wëri effectivement ba ñu demee ba ñu wàcc ñu suñu hôtel parce que le lendemain dañu dégg ne chauffeur ba rey nañ ko. Hmm. ak xaritam kooku ji àndoon ak moom. waaw hmm. hmm. booba itam comme mu tàng na trop. waaw yàlla dogal na ñoom ñu ñoom euh, Soumaré. ak ñoom euh, Nayki Mbodj. def fa conférence bu rëy ca jàkka ji. ñu waxtaan fa ndeysaan am na du ma fàtte am na benn xa euh, suñu mbokku Haalpulaar bu dëkk Tëngéej ñu Bayal. Sow ndeysaan. fekk na invitation ba suñu conférence ba. Hmm. booba Congo kiyewul lool. Hmm. après nag am na ñam benn xale Abdoul Majid mm-hmm. xale bu baax mm-hmm. bu tuubal na sax ab labbe Abdoul mm-hmm. Majid xale bu am diine lisaan aydahullah wa nasarahu waaw kon daal sëñ Habib loolu eh, ay benn benn rek man mi ànd moom si àll bi seede naa loolu macha allah waaw macha allah tabaarakallahu yaakaar naa ni am na solo eh, mbokk yi nga xam ne yéen a ngi seetaan seen télévision bii di Aïnou Mady TV waaw comme koy ko waxee tey ñu ñëw ci bi di ëttu alxaaji Iliman Saxo fekk fi njabootam gu sunu baal xaaji tafsir mm-hmm. yal na yàlla yokk leeram mm-hmm. yokk njëggal yokk yërmande ci moom mm-hmm. ak way juram yaak maamam yaak tabarakallahu magam yaak ñëpp ak fépp julli tëdd ci àdduna eh, sunu baay Pape Diagne eh, xam naa ne du ñu la téyetul yàgg ndax jotaay baa ngi bëgg a yàgg tabarakallahu léegi nag su ma la bëggoon laaj eh, ban gàmm moo la gën a marqué nga xam ne gàmm gi moom daanu nga daanu nga ci alxaaji Moussa caayi sahaa ah, moom day bari de <laughs> moom day bari de <laughs> day bari lool day bari lool mm-hmm. xam nga eh, si Baye bu Sakho ni mu daan jànge mm-hmm. wax dëgg yàlla dafa uteeg ni ñuy jàng ndax Baye bu Sakho commencé jàng dafay def eh, entrée matière boo xam ne ak théâtre doon yow da ngay dem ba dootoo xam sax ni jàng yi bu leen nee ne kon nag kon ngeen préparé à ta sélection tour ñu dugg ci jàng yi. Mhm. day fekk parfois mu nekk deux heures et demie trois heures. te moom bokkul ak ñi ñëw ay jàng ay deux heures du matin de. Mhm. moom minuit pile ñun dix heures la ñu daan tàmbali. Ah. dix heures. pil la ñuy jàngali di way ba minuit. mu dugg moom bu ñëwee ñaaree du toog sax ci fauteuil. day taxaw ba cinq heures du matin. moo tax euh, man ba ñuy fekk ñuy deux heures trois heures ñu tas jàng yi ma ne ah ñi de jàng am meltu na meloon mm-hmm. waaw man de dem naa euh, jàng euh, njaareem mm-hmm. ñu julee si tëngee fajar mm-hmm. kooku moom jàng yi tel naa tas waaw ci ko ne bàyyi bu saxu daal ay jàngam bul ne daal damay dem ba sonn ba boo demee daal dama gëmmentu dem boo demee dootoo gëmmentu waaw fi nga xamee ne jàng bi sax moo neex mooy bu jàng yi tas fa muy arrêté dafa leen naan ku bëgg a xam par exemple nangam fu mu mujjee ak nangam nan lañ koy àggale ak nangam ak nangam fekk leen ma jekkoo wala fekk leen ma gawar mani wala fekk leen ma Louga wala fekk leen ma Thiago wala fekk leen ma Saint-Louis waaw fekk leen moo tax ñi daan seetaan di jàng ñu bare bëri ci dëkk mhm. da nga daan jaaxle bu ñuy yibbisi gis oto yi niñ tegloo mhm. nga xam ne ñii mhm. seetaan di jàng Ibou Sakho moo leen fi andi woon waaw dañuy jógee dëkk ak dëkk waaw dañuy jógee dëkk ak dëkk waaw <clears throat> boo jigéen par exemple Saint-Louis yooyu jamono dangay gis oto yi jig leen nii te ñun ñaari oto la ñu am wala benn waaw bu ko defee ñëpp àndandoo ki nga waaru ci yàlla waaw léeg-léegi nga ñëw euh, arrêté bàyyi bu saaxoo jàng yi nangam nangam ñu ne ah kon ci mun si jàng yi ngeen fanaan ñu ne waaw mhm. donc bàyyi bu saaxoo daal mënuma leen jàng yi moo dàq jàngam waaw parce que moom bu eh, da ngay yàkkamti samedi yoraat ba nga ñëw parce nag mhm. da ngay am ay leçon mhm. xam nga bàyyi bu saaxoo nag jàngam boo gisee mu xawoon euh, euh, am complexe ci ñu bare mooy dafay jàng ci fiq jàng ci balaaxa mm-hmm. jàng ci aro dëgg mm-hmm. bayaan mm-hmm. jàng di la jàngal ak xikma dafa daan dafa daan jàngal ci ci ci xikma yow ba nga yaakaar ne yow doo da ngay defee ne sax yow boo góorgóorlu rek àgg ci yàlla tout suite waaw dañuy wax rek yuutil xikmata man yasha wa man yuutil xikma faqat utee xayran kabir waaye umay zakri umay zakri ila ulul albab waaw léegi dafa leen dafa leen dafa leen jàng ak njabootam na ngeen jéem a góorgóorlu te jàng Mm-hmm. sikka nag fiq mm-hmm. man yuridullahu bi xayran mm-hmm. yu faqihu fi diin waaw loolu lañ daan wax wax dëgg yàlla moo tax eh, ba néew na ku yeewa ci keppaaram te déggula fiq waaw liñ daan mën a wayeeg bëgg a wayeeg yëpp nag daf ñu daan poussé ci jàng waaw am amul benn heure nag booy ñëw ne bàyyi bu saaxo dama nga tëral ma bu yaboom fekk ci yoon te dool tëral moom kay loolu la a sawar waaw mm. jàng. Mm. waaw moom moom loolu moom. Mm. waaw euh, maak Alaaji Gaye ak ñoom euh, foofu lañ jé yaa ngi jeexale Ibnu Malik. Mbañax. te loolu. ay ya yaagul. ay. soixante trois la soixante quatre. waaw waaw maa ngi fàttaliku. jàng yi njëkk jàng foofu. Baye Abdou. may na ko nag. Mm-hmm. naku wa mm-hmm. booba Alaaji Adrame Ndiaye moo abal sëriñ bi quatre deux pose euh, quatre cent trois mhm. bu camionnette maag Alaaji Gaye ñoo jëri nag yu nu ñaar mhm. du ma ko fàtte mu waaw maag Alaaji Gaye rek ñii ñoo ànd jëri nag yu bésu àjjuma mhm. ñu fanaan bët set di di samedi ñu jàng waaw at moomu rey fanaan kenn bu doon soixante-trois daal waaw kon eh, loolu yàgg na waaw bàyyi bu saaxo nag eh, ku xamoon àddina xam àddina li mm-hmm. mu xamoon àddina ku mm-hmm. ànd ak moom di nga xam àddina mm-hmm. daf daan yee ci yu baree baree bare ci yu baree baree baree bare yoo xam ne sax da nga naan ñii kii day wax ak ay moromam waaw ah, fekk léeg-léeg dafa am ne am temps boo xam ne boo fa àggee boo wax ak sa doom nee na koy wax ak sa morom mel na kuy wax ak sa nawle mel na kuy wax ak as gor am nopp te la déglu ndax yéen a bokk deret donte yaa ko jur waaw boo demee ba sa doom boo ko gëddee si ndab ndeysaan mm-hmm. du ñeme ñu jóg mm-hmm. waaye bu sàq mi da koy sàq mi du ko mën a wann mm-hmm. xamal ne kii kenn waratu ko dóor kenn waratu ko xas waaw te boo koy yedd wettal ak moom ci biir néeg waaw bokk na ci ak yaru yaru njabootam ku ci mas a def déga bu ñëwee kenn ca ay am attaqué rek mu baare ko mm-hmm. waaw li may wax dem nañu maabo jàngi maabo mm-hmm. maag Alaaji Gay mii ñu am lu ñu def mu ne mu ne ool leen ma ko ñu oo ko mu ñëw yàlla na ko yàlla yërëm papara gi soog ne kii mu ne mu ne mu ne mu ne c'est dem leen waaw waaw yàlla ko yàlla bul wax la mu wax bul wax la mu wax mbubb dañ koy wax dañ koy solal mbubb waaw waaw yàlla ko yàlla yërëm am lu mu wax waaye bu sax ñu dem leen mm-hmm. maa ngi fàttaliku jóge nañu Mm. <laughs> ndakaaru mm. dem ba Ziguinchor yóbbu ay rajo ma yàq rajo bi mm. <laughs> yàlla na ko yàlla rëm raan jool daw wax kër gi <laughs> ñëw waaye sëñ bi keroog laa gën a rus ndax waxuma ci dara waaw ba ci ëllëg sa dañ jàngee paa ndekete dama dama jël eh, fil bi opérateur bi rof ko ci courant bi mu ne tàng yàqu waaye pour yaru bàyyi bu soo xam ndeysaan dafa am yar yoo xam ne Euh, bañ la ko wax sax moo moo gën a moo gën a metti mhm. ñu wax la ko ndax xam nga ne kii li nga def yëg na ko <laughs> mbooloo mi yëg-yëg mhm. nga ñëw ne seetlu kenn waxu la dara mhm. yar la yu metti bàyyi bu sax daan yar njabootam ci façon bu ne waaw façon bu ne li mu gën a bañ nag mooy di wax ak njabootam nga di ci interpellé di ci dugg moom bëggul loolu bëggul koy cong moom li muy def nee na ko defal boppam mm. waaye bu ko kenn ne di ko poussé mm. pour mu dóor njabootam mbaa mu xas njabootam mbaa mu wax njabootam jaabu déedéet mm. waaw bokk na ci éducation bëggul kenn ku koy poussé pour ci njabootam waaw nee nañ boo mu yoree njaboot te mun loo leen a yar c'est pas la peine ngay am njaboot waaw mm-hmm. Mm-hmm. bokk na ci mhm. baarakallah baarakallah kon mbokk yi waxtaan waa ngi noonu mhm. fii lañ ko doon defee tey ji ci ngàpparu mhm. kër alxaaji iliman saaxo li ñu taxoon daje nag mooy ñaanal suñu wajuru tedd ba alxaaji tafsir saaxo yàlla na ko yàlla wane la ak mag ñi ci barke sayidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam eh, ki ñu doon defal waxtaan mi nag di suñu baay alxaaji Pape Diagne eh, xam naa tey damay ñaan maam Habib Sakho mu may ma rek ma yokkal ko ci ñang bi ndax waxtaan moom macha allah eh, waxtaan wi ndaw ñi ci jamono yëpp fa tabaraka war nañ ci waat bàyyi xel mm-hmm. nafaraat ko jàngaat ko mm-hmm. yal nañu yàlla may dégg ak topp kon bàyyi Pape Diagne tàggatoo bi ah, waaw kon ne waaw yow tamit ñu ngi lay sant di la gërëm ñaan mm-hmm. eh, di gërëm eh, Aïnoua TV eh, yal na yàlla yokk seen martaba yal na ngeen am ay maratib yu bëree bare bare bare am ay chaînes yu bëree bare bare bare bare bëri yaatal seen wërsëg yaatal seen waxta mu tegu ci siraatul mustaqim ndax lii ci lu baax la waaw fàttali démb te di ngeen ko li ngeen di fàttali yëpp tegu ci sunna ak sariya waaw mm-hmm. ah, fàttaliku ñu dara lu ñaaw mm-hmm. yooyu lu jar sant yàlla la mm-hmm. kon yal na yàlla taxawal leen yal na yàlla dëgëral leen yaag ñi nga àndal yal na yàlla defal leen li ngeen bëgg a defal leen tawassu ak tawfiix doormal ma wujud waa limu shuur yal neen yàlla dafa iftitaaxul xayri bi kulliya waaw kon bu ñu jàng fàtte ñetti lixlaas yéene ko waaw waaw waaw waaw xaaruñ tañ taxal ko keneen jàng fàtte ñetti ixlaas ah, ah. dolli ko bàyyi xaaji tamsir Sakho mm-hmm. yéegal ko ci sëriñam aji Ibrahima Sakho yéegal sëñ bàyyi maam maam Iliman Sakho mm-hmm. eh, sëriñ Haji Malick maam alfahimi omar fuuti ko de adama aysa xaali abdul abbas seydina mouhamad sallallahu alayhi wa رمج اعطنا هذه لمن جعلت السلام لاجتماعنا حظا وأعطي في القبر سعه الواسعة وهجة البالغة وقول الثابت ان المستبين في أهل مسلم جاء في ارض عن جنبه اللهم بيد صاب ما قرحنا ونورا ما تلونا من كتابك العظيم هدية واصلة ورحمة متسلة إلى روح عبدك من عبدك أنا تمسير صاخو وإلى روح عبدك وابن عبدك شيخنا وسيدنا مولانا عبد الرحيم الصاخو وإلى روح شيخنا والجنا ومولانا عجل من صاخو رضي الله تعالى خاصة لهم وعامة لجميع أمة المسلمين والمسلمات بفضلك وجودك وكرمك يا أكرم أكرمين اللهم أوصي صواب ذلك إليهم آمين. اللهم اجعل نورا يسحى بين يديهم آمين. اللهم اجعل رهيق المختوم شرابهم واجعل جنة الفردوس مهواهم اللهم أكرم به مقامهم ويسر به حسابهم ودع بصابهم اللهم توفنا مسلمين لا مبدلين ولا مغيرين ولا فاتن ولا مفتونين سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين